Euh, dal leen ak jamm chaîne de télévision la RTS 1 fii ci seen émission mbeex mi ak joor tay nak nag émission mbeex mi ak joor da fay dalal ki nga xamante ni monsieur Alphonse le di directeur du développement des équidés du Sénégal fa la ci ministère de l' agriculture et de tey nag ku wax équidé wax fas ak mbaam mais ku wax fas wax sport euh, équitation wa maanaam sport équestre wax course fas mais aussi wax li nga xam te ne dafa jëm ci wàllum agriculture mais wax ba tey ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllu transport te loolu yëpp ko wax tey mën nañu wax ni que ni économie moo nekk ci ginnaaw tey nag ñu fas yéene dalal koo xamante ni xam-xam dafa wàcc ci loolu euh, directeur maa ngi lay nuyu. fay. Euh, di rafetlu vraiment cette invitation parce que euh, émission bu am depuis pratiquement 2008 ku wax fas nag wax lu am solo ci euh, économie Sénégal ñu bëri xamuñu ko dañuy gis fas di ci course sport équestre mais bi si en terme économique xamuñu ko nuyu téléspectateur euh, di nuyu sama euh, direction du développement des équidés ak ministère de l'agriculture, euh, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Nous mm-hmm. di nuyuwaale sama ministre bu l'Agriculture, bi maanaam Mamadou Djibo Diop ak équipe yep, mm-hmm. voilà mais tey directeur tey mm-hmm. boo ñu doon wax lan la direction bi di lan direction de des équidés mais aussi lan moo ko waral ak ban jamono créé question bobu nak neex euh, direction du développement des équidés euh, dafa am historique bu bu euh, bureau bu bureau du cheval avant manam muy initier ay yu à travers l'amélioration génétique la à travers l'attraction hippomobile euh, vers 2004 il y a direction une seule direction au niveau de l'élevage, la direction de l'élevage. Il y a une nécessité d'organisation du secteur En 2004 déjà nous avons un programme bu ñu programme de développement de la filière équine euh, programme euh, développer tout ce qui est amélioration génétique nous avons ñu créer le hara de Dara nga avons créé depuis 1948 vers les années 84 avec les politiques d'ajustement structurel nous avons vers les années 2004 avec euh, le programme Bobu, nous réhabiliter réhabilité, importer un étalons créé un yeneen hara le hara de Kaulak, le hara de Thiès et le hara de Mbaké plus tard ensuite Développer aussi, euh, Madame, euh, tout ce qui est génie hippique la commission bi nga mis euh, mettre en œuvre pour créer l'Ara national en 2004. L'Ara national été créé koy bureau bobu, moi œuvre tout ce qui est Madame génie épique. Nous avons ñuy avec ak architecte la commission pour que ARA national am. par la suite vers 2011 nous avons au niveau du ministère de l'élevage Légui nag direction bi euh, maanaam bureau du cheval d'abord menena action yoyep n'est-ce pas ah ñu gis ne nag yooyu vraiment euh, dans un contexte boo xamné dañu wara créer yenen direction ñu gis né liggéey na liggéey bu mag ñu créer ñu créer une direction en 2008 direction bobu am plusieurs rôles manam développer toutes les utilisations manam fu ñuy jëfandikoo fas rek ak mbaam dañ ko wara développer moderniser mo am ay patch yu bari mo am amélioration génétique moy wax ko déjà initié nañ ko bu yag avant la création même de la direction uh-huh. mo am euh, yi nga xamné moy traction hippomobile mo op traction animale moy euh, fas yi facile fas yi dem si mbéy meek yooyu yëpp am yenen euh, saut d'obstacle mm-hmm. les chevaux les sports équestres yooyu yëpp nag si gis dafa am fu ñu ko tënk maanaam administration booy liggéey rek dafa am ay tax y a des lois y a des décrets te liggéey yu ñu def yooyu yëpp dafa am fuñ ko euh, maanaam sukkandiku boo demee amélioration génétique nañ ci ñëwaat certainement euh, am na ay textes euh, un arrêté boo xam ne mooy régler tout ce qui est monde public maanaam araay ara public ak privé yi naka la ñuy defee monde public li say yeek yooyu yëpp c'est réglementé boo amee poulain euh, da koy déclarer ak yooyu yëpp yooyu yëpp am na. kon mais mais mais mais directeur. foofu bëgg naa nga taxaw fa tey aara aara aara aara aara privé yi. Mhm. tey décret boobu noonu nga xam te ne moom moo réglementé loolu. est-ce que mën nga ci dugg tuuti parce que tey. Mhm. gis naa ni tey aara yëpp tey Sénégal daanaka. Mhm. am nañ ay étalons ñu ngi indi ay étalons. mais tey réglementation boobu noonu naka la demee. ah réglementation ara ara maanaam arrêté la buy réglementé tout ce qui est. centre de production centre mhm. de production nag bari na façon mun nga am euh, jumenterie maanaam ay jument rek nga teg si sa élevage mun na am ay étalon nga am ak ay jument di def ay sayi mun na am da nga bugg a teg un centre d' insémination artificielle mhm. comme ni ko état bi defee mhm. yaa ngi dégg mun na am aussi transfert d' embryon nga bugg def arrêté boobu mooy réglementé loolu yëpp ci biir loolu boo jëlee par exemple euh, l'amélioration génétique liée à la montre publique des espèces asines et équines Tay bo bëggoon importer ay étalons da ngay adresser une demande d'importation bo xamné direction bu wax direction des services vétérinaires mo lay autorisé parce que mom moy saytu li nga xamné euh, fièvre warul dugu à travers les importations d'animaux. De lay jox autorisation né la ah voici conditions yi na nga def tasbi nanga na nga def tasbi ani animaux yi aussi bu ñew nañu ànd ak documents yi ak document yi. léegi lu les mën a nekk maladies de la reproduction ak yooyu yëpp mhm. léegi nag boo importer sa étalon yi ba pare balaa nga leen utiliser il faut nga def une demande d'agrément au ministère de l'élevage chargé de l'élevage ba légui mhm. demande d'agrément bobu suñu direction mo lay jox autorisation autorisation bobu nak da lay jox carnet de saillie mhm. carnet de saillie bobu

envoyé la direction du développement des équidés dans les 15 jours C'est ce qui est normal Il feuilles a mooy feuilles qui ça permet de déclarer plus tard la naissance. un an après Wow, dans les 11 mois après les gens qui ont juddoo yow nga déclarer nous, nous ñu déplacé les agents qui sont au niveau du terrain les plus proches ont ont la identification. Euh, envoyé ñu document bi nous ñu établir un certificat d'origine donc euh, donc te loolu texte boobu moo ko organisé. mais su que moom dafa indi étalon moom te amul autorisation boobu au niveau du ministère mhm. est-ce que moom fas nous noonu muy juddule est-ce que tey dinañ mën a am CO au niveau du est-ce que tey dinañ mën a am certificat d'origine justement nag loolu mooy euh, nous réglementation a mhm. su la neexee nga indi euh, maanaam sa sa étalon ak yooyu booy judulee ci sa biir kii bi loolu yaa xam mais am na loo xam ne ñëpp ñoo ko def parce que c'est des arrêtés la plupart du temps ñoo koy defandoo mm-hmm. arrêté bu ñuy def au niveau du ministère de l'élevage dañuy woo acteurs yi bindandoo ko accepté ko kon boo amee sa étalon déclaré woo ko maanaam doo am avantage yi am ci biir yëpp duñ ko identifier comme euh, du mun a daw seen seen seen seen produit du ñu mun a daw mais mais mais foofu aussi euh, directeur foofu mhm. est-ce que bi amul benn jafe-jafe mhm. parce que su fekkente ni man dama am sama étalon ma indi ko mhm. te déclaré wu ko au niveau du ministère ba nga xamante ni tey dinañ ma mën a autoriser que tey mu mën a def monte wala mën def say wala mu def dara donc su fekkente ni dama jël sama demi-sang boole kook moom en fait demi-sang boobu su amee doom en réalité en réalité euh, trois quarts la waaw loolu loolu xam nga tey trois quarts la boo xamante ni tey ministère du ko nangu jox certificat d'origine. Mhm. en fait kon mom ba légui dom ji day amé de demi waaw té su ni trois quarts la. mu joxat ko benen étalon bo xamanteni mom mhm. amna au niveau du ministère su ko day am kayitu trois fekk na 8 la. waaw lolou nak réglementation am ak respecter réglementation donc fofu damay waxé que bu bu ni il n'est pas de bonne foi éleveur bi mom il n'est pas de bonne foi. est am de bonne foi sax am aussi euh, xamul xam nga day am. mun na am nga am nek de bonne foi def lu la neex mun na nga am xamoo. loolu yëpp quel que soit alpha nak réglementation moom xamul loolu c'est-à-dire xamul euh, <laughs> réglementation réglementation la. moo tax ñuy def yëpp ba def une réglementation inclusive hein, n'est-ce pas. léegi nag yu mel noonu aussi à l'avenir peut-être ñu xool li nga loo xam ne gis naa ko Maroc euh, wala feneen bokk. Mhm. ñoom dafa am fas yoo xam ne seen. Euh, euh, par exemple, les Barbes Arabes, souvent ils ne sont pas identifiés quelque part. Mais nous avons une commission nous a des critères. Les critères qui font que les Arabes ou pas. Nous avons déplacé vers ces chevaux-là qui n'ont pas été identifiés. La commission a ñëw les critères yi boo ah lii de nuroon les ak barbe vraiment dañ koy agréé les nag mu dugg si race mu am nak yeneen pàcc xam nga wax naa la aménage génétique mhm. beneen pàcc bi ci suñu liggéey mooy euh, la grande masse mhm. c'est-à-dire euh, les chevaux de la traction hippomobile mhm. yooyu dañu am utilité dañu am résistance am adaptabilité au niveau euh, local am aussi ben une résistance boo xoolee fas boo xam pur sang anglais la wala lu un dérivé du pur sang anglais c'est des chevaux de course chevaux de course nag foo ko dëgg c'est un cheval fragile gaaw amna am doole mais il est fragile contrairement à nos chevaux yi nga xamné euh xaw nañu tuuti mais ils sont euh, résistants ils sont résistants donc qualité yoyu sax la ñuy wut ci biir euh, aménagement bu ñu def certes euh, produits yi nga xamné ne ñoo jóge ci amère génétique bi xaw jël faiblesse wu pur sang anglais bi mais jëlaale nañu résistance euh, pur sang maanaam la la race locale donc ci biir yooyu may wax njëriñ bu au niveau de l'agriculture, du transport et autres Nous avons chance nag am ay ONG yoo et ONG Brook ak ONG World Health Welfare Nous avons fait une étude pour xam njëriñu c'est surtout les chevaux yi nga xam au niveau de l'attraction hippomobile c'est une ci économie euh, Sénégal ñu def étude pour jox ko ay scientifique nous avons a dem ba gis agriculture par exemple bu dul woon fas Nous hein, dañu par exemple 75% des surfaces emblavées maanaam en terme arachide production arachide 75% mm-hmm. soixante pour cent duñ ko am nga jël nga jël le 1000 44 a mm-hmm. ce qui fait que lu mel noonu bu fas amul par exemple dañu am des pertes de deux tiers ah, loolu am am am na doole boo demee tey Touba jour bu Il y a près de 295, cent 225 000, quinze wala passagers qui sont transportés par le au niveau de l'attraction hippomobile nga jël Pikine bi. mais Touba walu ndokh mi rek so xolé tay zone yu bëri ci biir Touba face ak mbam. Ah, mo mo mo ko moo mooy exactement Bo jëlee Pikine il euh, y a par exemple euh, le nuit par jour, c'est 1700 tonnes. 1700 tonnes de soit marchandises soit l'île, soit l'île. mais 1700 tonnes ça équivaut à 850 voyages d'une camionnette par exemple de 2 tonnes alors que les pays étrangers ils étaient dans le plein développement ñu ngi sur la traction animale dans certaines zones. Euh, tey tey tey tey par rapport ak euh, traction animale bi ngay wax euh, mm-hmm. directeur tey ñu constaté que ni tey amélioration bi tey mm-hmm. dafa dañ ko jublu rek ci li nga xam ne moom mooy les pur sans engrais mm-hmm. parce que tey boo demee xool ci aaraay bëri ci Sénégal tey amélioration bi ça se fait à à partir du pur sans engrais te tey mu am ay ay ay chevaux yoo xamante ni ce sont des chevaux de trait pourquoi defu leen politique wu indi ci fas yooyu noonu que l'élevage pur sans engrais pour ñi nga xam ne def agriculture et transport. question pour vous ma parce que euh, essayé nañu. Mhm. indi woon nañu euh, quelques étalons. Euh, c'était pour maintenant nous développer le côté et les produits étaient concluants. Mhm. mais nous dafa une sorte d'influence de la politique wala de bay pur anglais. Mhm. mais nous, nous sommes en train de proposer dans le cadre de la politique d'autosuffisance alimentaire nous indiquons, importé euh, euh, bolé, par exemple si importation yi euh, tout ce qui est étalon de trait nous avons des day yokkaat doole suñu fas yi ci nous ñi nga au côté dañ lañ mais nous nañu au moins quelques chevaux de trait nous xam comme par exemple dans toute l'Afrique de l'Ouest mhm.

ak ci duni ñu nekk ak zone de ressources yi nga xam ne tey machine mun ñu fa dem tey mala yooyu ñoom ñoo koy def te ñoom ñooñuy ñooñuy te ñoom ñoo ñuy jaay ñun tey li ñuy dundee yëpp ñoom ñoom ñu koy ah, jaay donc tey politique gouvernement war nañu ko gën a mën a mais communication bi aussi war nañu ko gën a yéen direction war nañu ko mën a jëmale ci loolu exactement dañu am nag vraiment en tout cas euh, chance boo xam ne ministre yu fi jaar yëpp ku ñëw rek day mel ne da ngay jaay ne yaa gën a bëgg maanaam domaine fas yi mm-hmm. voilà ñom ñuy euh, profiter ci yoyu gis ngeen né le ministre Mabouba Diagne ñew na présider une course euh, au niveau euh, course bo xam dañ ko ko lon ñewat na ci course bi nga xam mom la ñu grand prix du chef de l'état gis na lepp xam na importance fas quel que soit muy agriculture bi muy course ak yoy yëpp xam na ko te waxtaan na ñom sen stratégie muy déglu d'abord les acteurs déglu la bëgg après nak développer vraiment une stratégie. Ça nous inspire, nous, de la filière. À se dire que faut nous am ay euh, changement yu bari yo xamné day nek changement institutionnel yu nous permettre par exemple ñu faire comme les autres pays. Changement institutionnel yo xamné mën nous tax ñu souveraineté de sorte à ne plus même dépendre au niveau du PMU, au niveau de l'ENEN ak l'ENEN ci filière même ne plus dépendre du financement de l'État tout simplement. Mais il yëpp c'est des réflexions. Euh, au niveau des des acteurs ils souhaiteraient comme Nico Anipel par rapport aux vaches laitières mais nous réfléchir pour importer massivement des juments dans le but de courir d'ici deux ans avec les pur sang anglais c'est le cheval de course par excellence pour ñuy permettre ñu organiser ay courses internationales ma ñëwaat ci euh, euh, li nga wax sur la la plupart du temps agriculture familiale m'a ëpp mhm. L'agriculture familiale c'est des petits lopins dispersés à travers tout le pays Il mhm. souvent mécanisation yu mag mécanisation, souvent adaptée adapté wul tellement la plupart des sols aussi adapté wul ci nga ñëw ak ay engins yu bëri yu mag yu am doole di aussi mhm. de sorte que euh, vraiment le cheval est l'âne et le bovin aussi, parce qu'Amazon, c'est des bovins qui font l'attraction comme en Inde, comme ailleurs. Vraiment, en tout cas, nous devons réfléchir de sorte à avoir des stratégies. C'est ce que nous ministre Bissas. Mais aujourd'hui, si nous devons souhaiter tout, sans que nous domine une course. Mais aujourd'hui, direction bi ak course direction bi fan la toll ak li nga xamante ne moom euh, amélioration race bi nga xamante ne tey ñoom ñooy daw suñu course voilà direction bi ak course ils sont très liés. Mm-hmm xam nga développer une industrie épique ça passe par l'amélioration génétique courses c'est la vitrine de l'amélioration génétique course ak élevage ñoo yem élevage course du développer. course bu élevage duñ ko valoriser donc comprendre euh, investir sur la production de chevaux adaptés aux courses manam mu disponible production boobu disponible fu mu nekk nii mënu leen euh, face ne courses, amul c'est parce que l'État a mis en place une stratégie en créant les haras en mettant des centres d'insémination artificielle en dotant les haras même d'échographes pour améliorer ses productions fu mu il y a 4 ans ou 5 ans on était dans les 200 euh, poulains par an nous ngi vers les 700 poulains par an kon lolu lu am solo dans le but de développer les courses développer la structure mais maintenant, euh, il faudra réorganiser tout sinon ce ça sera difficile à gérer euh, euh, les liens entre les courses et la direction textes au niveau de la direction nous avons une relation avec la course avons le contrôle antidopage moi, la classification des chevaux, tout ce qui est lié au bien-être animal, à tout ce, santé et bien-être animal, avec tout ce qui est lié à l'identification, avec euh, madame. tout deux ans identification deux ans yi. ça fait partie. Euh, mais fan ngeen vous tey la classification parce que vous avez nañ ni que ni aussi. saint euh, bu bespi bi bëgg nañ commencé dawal course le le er décembre tay ce gis nañ ni chaque année à partir du mois de janvier lañ dan dawal. mais fan ngeen toll ci classification bi ak deux ans yi. waaw yoy euh, deux ans yi sax du problème. Euh, à tout moment on nañ ko déclencher. classification bi ça dépend de la fin de la saison ak euh, les résultats des contrôles antidopage et autres. mais dans les normes ñun amul at bo xamné amna défaut par rapport wala bu ko aussi. Ben, de toute façon, <laughs> euh, c'est une question liée à, au calendrier haute, mm-hmm. mais de toute façon, nous sommes prêts. À, juste après l'arrivée des contrôles antidopage, des résultats, pour euh, convoquer les différentes commissions pour nous ayons euh, soit la classification validée par-ci, par-là. Mm-hmm. Donc, vraiment, l'IGE beaucoup la collaboration avec le CNG, surtout le nouveau président son leitmotiv c'est vraiment de de de faire une collaboration étroite avec les institutions. Mhm. may profiter Lou, c'est une collaboration avec euh, le ministère des sports. vraiment mon collègue de la direction la DAPS hein, la direction des activités physiques et sportives collaboration pour rafet pour développer en tout cas les nga xam mhm. course sport équestre n'est-ce pas Et euh, aussi. Euh, les sports équestres, le président monsieur Wad. Ibrahima Wad. c'est la même chose avec à travers PAPSEC qui est le secteur général c'est vraiment une une collaboration très étroite. maanaam boo développé élevage te développer yeneen yi. man sama rôle mooy ñu def de sorte à que toutes les utilisations mais progressent. Mais loolu gis lu baax loo xam vraiment. rafetlu deux trois mille mais nous <laughs> ñàkk aboré li nga xamante ni mooy li nga xamante ni tey moom la course yëpp di xaar mën nañu wax ni que ni même mhm. euh, début wu saison bi tey ci loolu la tënku parce que loolu bu amul classification du am mhm. mooy tey résultat yi nga xamante ni moom mooy jóge ci li nga xam ne mooy grand prix chef de l'État mhm. te nga ko joxe ba léegi par rapport ak li nga xam ne mooy test antidopage bi test antidopage bi fan ngeen ci tool ak lan moo ko waral voilà euh, contrôle antidopage bi nag euh, ci fait de course la bokk ci àdduna bi yëpp contrôle antidopage boo koy def genre arbitre la rek jarul coo jarul xëccoo jarul nangam c'est juste pour canaliser euh, pour am une équité pour que ñu bañ a dawal fas boo xam ne dafa feebar pour ñu bañ a dawal mën a ñu bañ a jox koo xam ne dafa gagné fekk dafa am leneen loo xam ne dañ ko dugal def manière sciemment ou involontairement ci biir fas bu fas bi gañe ci biir loolu nag mu am substance interdite am substance prohibée substance prohibée c'est surtout les substances médicamenteuses nga xam dañuy bañ nit ñi dawal fas bo xam ne dafa fièvre. yu bari nak ci biir yoyu souvent damay faral di naan lolu jarul jarul ciow. <laughs> les substances prohibées mais bu dé nak substance vraiment interdite la bobu nak c'est volontairement fait lolu nit a def mais balen leen na am nit def na wala nit defuko motax nak tax defar rek moo ko tax du ñun ñokoy def ñun ñooy nekk fii di sanctionné wala di ñun acteurs yi ñoo toogoon ne dañu bëgg a def un contrôle antidopage ñoo toog def ay arrêté ñoo toog réévaluer waat arrêté yooyu après 5 ans euh, maanaam de mise en œuvre cette année gis ngeen ne def nañu un atelier à Saly invité acteurs yëpp gis ngeen ne réactualisé nañu ak euh, arrêté bi gis ngeen ne def nañu un contrôle antidopage di xaar nag mu ñëw ah di ñaan lepp euh, mais hein? j'espère que ren li amone daw amul vie par rapport ak vice de procédure yeeg yooyu. non non jàpp naa ni. Ah, vice de pour man sax yoyu euh, manque de compréhension la won rek xam nga les réseaux sociaux sont trop développés. Mm-hmm. ku nak di wax lu la neex. de sorte que nit mun na gis bopam ne ñoom man dañ may xeex wala man euh par rapport à sa vie privée ak yooyu yëpp. Mm-hmm. loolu tax mu kii mais en réalité souvent. Euh, bu dee en Europe nit ñi xam nañ ne am na façon boo xam ne bu ñu leen jàppee sa fas si loolu xam nga ne soit defoo ko volontairement soit si lekkin bi la soit si leneen la souvent jarul coow parce que quel que soit alpha sa fas bu gagné gis nga ne dafa war a am une sorte de gentleman agreement maanaam un accord de entre gentleman sama fas bi gagné na mais am na loo xam ne moo tax mu gagné waruma nangu loolu c'est-à-dire dama war a nangu ne rek Euh, lii euh, ndogalu kii la man de defuma ko par par par par par volontairement mun na am ci lekkin bi la mun na am ci leneen mais quel que soit alpha fas bi gagné na donc loolu damay nangu na loolu am na c'est comme ngay dawal rek euh, am on fait sur la piste mhm. ñu ne la ah def nga une faute sur la piste fait de course de course ñu ne la def nga foot ci biir course bi ñu éliminer sa sa fas jeex na nangu nga ko c'est pareil pour le contrôle antidopage la plupart du temps les gens ne savent même pas où ils sont. mais ils koy un gentleman agreement entre eux Nous, en tant que direction du développement des équités nous l'un lu ñu mun a def contrôle antidopage parce que nous avons fait, nous avons mënoo dara amul contact direct euh, avec bi ak ak ak tube bi vous avez ba euh, flacon vous munatoo ko vous voilà beaucoup ko ubbee sax dañ koy rejeter bu kon loolu yëpp am na garantie yu bari yoo xam ne bu xasee ba ñëw rek gentleman agreement ma war a am diggante. <laughs> mais fu contrôle bi toll yegsi na wala yegseegul. waaw léegi nag euh, euh, ñu xaar euh, fan yi rek. Mm-hmm. mais yegsi na wala yegseegul yegsi na yegsi na mais xam naa c'est pas encore xam nga c'était problème de courrier. Mm-hmm. donc yegsi na. Mm-hmm. à tout moment dinañ ko récupérer. pour woo ñi nga xam ne ñoo ko seq. pour euh, xool naka lañ koy euh, maanaam mettre en œuvre. mais vraiment kontaan nañ ci dalal la. mais pour laaj la rek sama dernière question kañ ngeen fas yéene jël parce que tey wax nga léegi ci contre antidopage bi am na loo xamante ni c'est c'est d'ordre alimentaire te tey ñun gis ñëpp constaté nañ euh, écurie Sénégal dañuy joxe njafaan dañuy jël ay reen ak yooyu ñëpp di ko jox suñu fas yi ñu koy naan pour faj leen hmm. te kenn xamul li ñuy jàppee fas ndax foofu la jóge am jóge foofu est ce que tey ministère pare na pour saytu njafaan yooyu loolu yëpp la ak constat boo xam ne ñun suñu bopp suñu suñu suñu kii suñu yéene la ak loo xam ne nañ def lépp pour def ko euh, c'est un demande nañ def lépp boo xam réellement ci pratique yi nga xam ne ñoo am ci biir euh, écurie yi ci lekkinu fas yeeg yooyu yëpp est-ce que am na influence si résultat yi nga xam ne ñooy faral di ñëw euh, at bu nag yooyu yëpp suñu yeena la may profité aussi di leen wax ne euh, at fan yi ñëw xam nga at yi ñëw passé yëpp dafa amoon ay feebar yu bëri yoo xam ne ay euh, mortalité yu bëri ñoo amoon si au niveau de la partie ñàgg mm. ñu commencé woon di leen vacciner mm. di leen jàppale sous forme d'encouragement mun na am nag semaines yi ñëw ñu defaat lu mel noonu pour vacciner sous forme d' encouragement à ces éleveurs yi nga xam ne ku nekk ay fas yu bëri nga am ñii am nañu téeméeru fas sax ñii am ñaari fas ñii am euh, deux cent chevaux. nga xam ne fas bu nekk dafa am ay jockey am ay palefrenier am ay chauffeur. ferrants te loolu yëpp vraiment amul retour d' investissement à travers les courses état bi nak ñun ñuy leen di jappalé ci côté bobu euh, pour vacciner au moins les chevaux. mais euh, directeur vraiment content nañ ci dalal la ñu bàyyi la nga tàggatoo. ah leen di euh, remercier infiniment parce que ma ngi la koy wax depuis 2008 du ma fowé une émission parce que c'est une des émissions qui nous aide vraiment yi nga xamni ñuy jappalé pour ñuy wax euh, 30 minutes nga am la télévision yombul. Euh, pour ñuy wax de euh, suñu politique yi nga xamné ñom lañuy def au niveau des de la filière équine au niveau de la filière de l'élevage Je mm. ngi lay remercier bu je a baax di la féliciter di la encourager parce que professionnalisme ngay doxal vraiment ci euh, liggéey bi nga def te gis na à travers toute la saison épique qui vient de s'écouler manam ni nga doxale pour en tout cas faire passer euh, la politique euh, hippique au niveau au niveau du CNG ak yooyu yëpp élargir nga wax hein, traction hippomobile wax nga ma hein, donc mm. nous sommes à votre disposition en tout cas. pour euh, les jours à venir les semaines à venir les années à venir pour développer ensemble cette filière quoi. Mm. je vous eh, remercie mais merci beaucoup directeur vraiment kontaan nañ ci dalal dinañ amaat yeneen jotaay parce que li ñu war a waxtaanee ci course bëri na. war nañ waxtaanee formation ci wàllu jockey ak entraîneur donc di jox beneen yoon xam naa dañ waxtaan balaa saison bi tëj dinañ leen indiwaat fii. ñu gën a yaatal ci loolu. di leen jox daje beneen yoon ci seen beneen émission mbeex mi ak joor